man di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay bes fi ñu wax sabonné bo noppé ñi tek ci kolos bi. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk wa al ngi wan di nuyu di kon ñu dellu si tey di matuli liggéey yi ñu tàmbali won mooy waxtaane rek jaar jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jamono benn weesu mu waxtaane woon ak mu jëm waxtaane lenn ci ay jikkoom waxtaane lenn ci ay wax yu mu daan wax tey ji ñu dikk kon di tàmbalee ci euh, ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu làqoo ba wuy ji boromam xew-xew ya ca am loolu sax du gudd waaye dinañ ci jaar rek tudd ci tuuti la ca des mooy soxnaam yi mu bay kenn ku ci ne danañ jaar ci aw turam wax dara ci ay jikkoom bëggit mu doon roy teef ci jigéen ñi ndax yonente bi li ci alquran wax mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana bi mu doonee roy teef nag te yàlla yabal ko ci ñaari ndijji bopp yi muy nit ak jinne yabal ko ci góor ak jigéen ba lu mu ci diine rek bu nee góor ñu jigéen inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati wal xaanitina wal xaanitaati yàlla dina ci wax ak góor ñi ti wax ci a jigéen ñi kon bu ñu andee soxna yi yonent bi yooyu euh, sunu mbokk jigéen yi kon danañu am roy royukaay yuñ mën a roye ñoom itam loolu mooy sababu ñu bëgg leen a kenn ku nekk ñoom andi jikko ya ak lañu cay dégg xam ngeen yonte bi bi mu fi jógee ba noppalu nag ba mu mu tàmbalee siiw ñi ni noppalu na ñi ni mënti nekk ñi seenu cofeel loolu ak nite it jamono bu ne loolu daf ciy feeñ nit moom fu mu mën a ci ay daraja rek dafay nekk ci biir kaata doomu aadama nite moom la Omar ibn Xataab feeñal mooy bi ñu nee yonente bi noppalu na dafa génne jaasi ni ku wax ni faatu na dinaa dagg sa bopp sama jaasi ndax yonente bi du faatu mënta nekk daan nag na Moussa defoon dem ab diir di deyaale ak boromam noonu la yonente bi def waaye dina dellusiwaat te bépp naa fekk bu doon wax ne faatu na dana rey bi nekk wax jojo abou bakar ñew bam ñewé yalla ba ci ne yonte bi sansam mu muri ko dal di koy fon dal di koy murad dal di ñew ci biir mbolam taxaw fekk omar taxaw mu ne ko omar toogal waya toogut abou bakkar dal def khutba bu gatt ta lamb lu bari dafa wax ni man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yacbudu llaaha fa inna allaha xayyun laa yamut ñi nga xam daal bis ni ki tey ku daan jaamu muhammad na xam ne muhammad faat na bis ni ki tey koo ci xam ne yàlla nga daan jaamu nag na nga xam ne yàlla kuy dund la te du dee ba mukk daal di tere ayab wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutilan qalabtum ala aqaalikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an aaya boobu mi ngi wàccoon ci xareb Uhud bañ dëkkee déclaré ba Ibnu Qima waxee ni rey naa Muhammad bañ ñenn ci jullit yi seen pas-pas xaw a daan ñenn ñi daw ginnaaw biñ demee ba xam ne yonente bi faatuwul ñu daje ci moom ginnaaw bi la yàlla wàcce aaya yooyu di ko dale ci kaw jullit yi di leen xamal ne leen Muhammad kat du dul ab yonent te ay yonente jaaroon nañ ci jëkk ko bu faatoo bu dee mbaa ñu ko ndax da ngeen di dellu ci la ngeen nekkoon duna ci yéen koo ci defit doo wàññi yàlla dara aaya boobu bi ko Aboubacar taree Omar dafa wax ne dafa mel ni tey ci la aaya bi wàcc ñu nekk ci jaaxle gi nag ak jaaxle da kapp saxaaba mbirum xilaafa gi it wax nañ ne tàmbali ne werante ku war a wuutu werante yee ko war a wuutu ñii ni lansaar ñun ñoo ko jëkk topp ñooy ay mbokkam kon wóotu ko ka koy wóotu ci nit ñi la war bàyyi ko lansaar yi ni ginnaaw dañ ko bën a xalaat ci ab dëkkam ba mu jógee fa ñëw ñu fat ko ka koy wóotu ci ñun la war a bàyyi ko ni am na dëkk ñuy denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ginnaaw bi yàlla def tawféex ci Abu Bakar war ko wóotu wax nañ ne Omar moo njëkk jaayante ginnaaw bi magi saxaaba yi ñëw ba lépp daje ci kàddu Abu Bakar war a doon xalifa yonente bi léegi yonente bi fa ñu ko bàyyi ci néeg ba sahaba yi dem di ko jullee kenn par kan di ko jullee ba ba mag ñi jeex jigen ñi ñew julle ba xale yi sax ñu jakk ko julle ko nek fa altine yandu ba ngon def ba talata ci guddi nak ko ko denc moy tiisu dajon kap ñepp yakko legi nak nag mu bàyyi fii ñaari mbir yooyu ma waxoon ci ginnaaw muy alquran ak sunna bàyyi fa saxaaba yi ñu ko leer na mu bàyyoon saxaaba yi ñu ko leer na def ay futuhaat fu a àgg ñu àggale ko fa noonu la fi bàyyee juróom-ñeenti soxna juróom-ñeenti soxna la fi yonente bi sallallahu muy ak jagle bu ko yàlla jagleel mën nañ ni kon yonente bi dencoon na fukki soxna ak benn juróom-ñeent ñi fi la leen bàyyi mu mel ni li mu soxna yooyu nag doon na wax ju bari ci ñi noonu diine wax ju bari wax nañ ko ci eh, di dal ci kawam jaare ko ci soxna yooyu am na ñuy wax ba naan kooku nitug bànneex la woon waaye nit ku jëm ci yalla do tak ay jabar yu bari te muhammad ay jabar bari képp la fi bàyyi lépp am na ay noni islamik wax waaye ñu ku leen di tontu da ngay wax rek ñu yonante bi bi muy doon gone ba ni mu amee fukki at ak ñett di fi ku ko xam rek ci ak fegu nga ko xam ak sori gum sori mbiri banex kenn mësu ko gis mu jog peñe boppam ni dafay seeti xale bu jigéen kenn mës koo jóg gis mu waaj ni dafay dem këri jigéen ngir waxtaane fa loolu ña ko xam ci ak njëlbeenam ba ci ak mujjam loolu lañ xam ci moom damaa xamul nag tubaab bu nekk ca Europe mbaa mu nekk Asie teen rek di jëfandikoo xelam ak xolam di bind xaj na sax bu jëfandikoo xel dina ko teg ci yoon waaye ab xolam lay jëfandikoo di bind di dal ci kaw yante bi di wax lu ko ne kooku mu waxaale ko waaye ña ko xam ak moom rek lii lañ xam ci moom kenn mës dégg ñu ne yonente bi daana dem ci fawukaay kenn mës a dégg ñu fekk ko ci birab bu ñu naan sàngara kenn mës a dégg ñu ne ànd naa ko jigéen jum denc loolu ci histoire am tàmbali ci ak ndaw ba ci kanam kon loolu noonam yam jamono teeloon ñu gën koo noonu ci adduna bi tuuma yooyu moom kenn ci ñoom mësu ko xëpp te ñoo gënoon a xër ci xam lu koy manqué boo ginnaaw nag ñooñu xam lu koy manqué ba wax ko képp moo leen ñoroon ñu dund ak moom ba mu jógee fii te loolu mosuñ ko ko kon keneen ku ñëw di ko xalaat di ko wax mën naa am da ngay manqué sa bopp sax yow. soxna yooyu ki mu njëkk denc mooy soxna Khadija bintu Xuwaylid muy soxna si mu njëkk denc li ma koy denc moom yonent bi mi ñaar fukki at ak juróom soxna soosu it fekk amoon na borom kër jëkk yonent bi ba am ak moom ak njaboot borom kër ba nag ba mu faatoo bi ko yonte bi dañ ci mi ngi toll ci ñeent fukki at moom soxna si yonte bi toll ci ñaar fukki at ak juróom diirub li yonente di yor soxna soosu it muy soxna Xadija tëkkul keneen teg ko ci kaw ba mu faatoo moom Xadija jëkk yonente bi di gàddaay bi muy faatu am na lu ëpp juróom benn fukki at yonente bi toll ci ñeent fukki at ak nangam di jege juróom fukk kon yonente bi ànd naa Xadija lu mat ñaar fukki at ak juróom te dolliwu ci keneen ba ni Xadija faatu Xadija li muy xam ko yonente bi takk fukki at teewut moom la gënoon sopp ci ay ay soxna ci ay ay soxna cofeel gi ko sopp dem na ba soxna si faatu lu yàgg ba mu yor yeneen soxna waaye dafay tudd Xadija lu bari di ko fàttaliku ba fiiraange sax daana dugg ci seeni xel ci loolu soxna Aïcha day wax ni yonente bi daawul xaw a génn kër gi te tuddul Xadija tagg ko ay wax na am na benn bis am na benn bis mu dégg mbokkum Xadija mu wax xaj na rakkam loola magam yonent bi daan ci kooku leen saa boo waxee daf may fàttali Xadija ci Xadija soxna Aïcha ni ko fiiraa ngi dug foofu nee na ma ne ko Xadija lu dara lu ak màggat goo xam ne faatu na bu yàgg te yàlla wóotalal na la ko wóotalal na la ju ko gën ñun yonent ndax ba ma nit ñi weddee la ma gëmoon ba ma nit ñi bàyyee la ma jàppoon dimbale ma ci alalam te booba nit ñëpp xañ ma seeni alal te ci moom it la ma yàlla wërsëgale ay doom kon yàlla mayu ma ko bëgg ne loolu la yonent bi tontu soxna Aïcha radiyallahu anha mu mel ni cofeel gi yonent bi amoon ci Xadija loolu ku ko xool da nga xam ne du cofeelu bànneex du cofeelug ak taar du cofeelug ak ndaw waaye jëmmi xelum Xadija ak jikkoom yu rafet ak matale ko leen ak jiitu gim jiitu nit ñi ci ak ngëm gëm yaa ay nubuwa bi yi mooy mooy mooy li sababoon cofeel gi yonente bi sallallahu alayhi wa am fi kon lana doon royteef ci jigéen ñu xam ni cofeel gi dox diggante góor ak jigéen du taarub kaw rek yam ci maa ngi taarub kaw nit dana ci sopp nit waaye bu boobaa loolu la ñuy tuddee ak nobel nga xam ne day mel ni lu romb rek di jàllee la waaye cofeel dëgg dëgg dëgg goo xam ne dalay topp ba ci sa biir bàmmeel la ko mën a may ay jikko lay doon kon soxna Khadija li ko may cofeel googu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yu rafet la yu mu ànd ak gannaaw bu Khadija fato mu door a denc kañ wax as sayyida sauda bintu bintu Zamaa kañ wax moy ñaare lu soxna bi mu denc ginnaaw bu Khadija fato mom dafa don ko xam mom tam borom kërëm ci ñu gàddaayoon demone Éthiopie ci la bokk waye dafa gàddaay and ak mom dem Éthiopie far euh, soppi ku doon ab nasaraan doon fa nasaraan ba foofa la faatoo ba mu faatoo nag soxna si sawda wéet lool amul ko ko jaboote bu del si ci ay waa këram mën naa am ñu forcé ko ci ak kéefar te bu boobaa lor ju metti dana ko ci fekk loolu moo waral yonente bi salallahu alayhi wa sallam euh, féete woo ko ko ngir terale ko ci ngëmam gu dëgg googu mu gëm kooku kon dégg nañu ci ba tey ni jigéen war na am décision boppam ci ak gëm nga xam ne du sukkandiku ci jëkkër jum àndal jëkkër ja weddi du sukkandiku ci ay baay ak ndey te loolu alxuraan joxoon nañu ci misaal ci soxna sayidatu Maryama ak Asiya moom la alxuraan di junj ni daraba allahu كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يعني يلا دنا جوخ جلي جي مثال تي سخنا نوح اك سخنا لوط يلي نكون تيرم نياري جام يو باخ واي دنيو ور ورغا موي نياك بو نياك اندا جام تي باس باس ba tax na ca waa sawar lañ bokk daan wadaraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawn ñi nga xamante ni dañoo gëm ba tey yàlla dana leen jox example ci soxna firawn ci ni maanaam dale yéefar yi jox exemple ci ak kéefar ak ak ngëm mën naa juddoo ci biiru kéefar lii mu jubloo woon julli li leen ak kéefar mën naa ci biiru ngëm tax mu ne wadaraba allahu masalan lilladina amanu imraata firawn إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الخمر الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفعنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من خانته ودو خيجاري مساتين سخنص فرعون عندني لن أفسد يخطو كي دومي عمران لا تبعين أبي فرلو لن أفسد يخطو وان لاجني للموالي عليه وحني يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل soxna si it foofu la jaar muy borom këram la àndal ci ak ngëm mu dem Éthiopie mu soppi ko doon nasaan faatu fa moom mu dëggu ci ak ngëmam ba yàlla terale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc ko loolu rek ñu jubloo joxe misaal ci ni kon jigéen war boppam ci ak ngëm ba du xool du ca xool baay du ca xool borom kër bu ko yor duñu ak ngëm mbirum yàlla la moo xam ne yàlla mooy seet ko nga ne xam ne tàbbal ko ci xolam gannaaw ba mu ca tàbbee it nag sa vision bopp moo ko soxna Aïcha doomi Abubakar mooy ñetteelu soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yonente bi denc mi ngi toll ci juróom-ñeenti at juróom-ñeenti at boobu yonente bi am na juróom fukki at ak juróom wala jege na juróom fukki juróom mel na moom la yonente bi denc ci ab jànq mu mel ni gorom léegi yonente bi doxalee digganteem ak Abubakar du dara loolu ak pay gum ko fay ci ànd gu rafet gi mu ànd ci ci ndax bakar mooy ki xaritoo woon ak yonante bi salallahu alayhi wa sallam nu bu di ñëw ginnaaw bu nu bu gi ñëwee dëggal gum ko dëggal ak set xam gum xam ni musu xam ci ay tax na lépp lu yonent bi mas a wax ba am sax ñu ñu ñu rëng-rëng ba caa am nattale Abubakar bu ñëwee dinaan waaye moo ko wax bu ñu ko waaw mu ñu ko wax dëgg kon dëgg ba tax ñu di ko wooyee as siddiq siddiq nag martaba bu kawe la ndax alxuraan bi ne min annabi ulaayika lazina an'ama allahu alayhim min annabiyyiina wa siddiqiina la ci teg ah bi am bi yow jàllee siddiqoon yi ñoo ci topp te mooy ñi dëggal ñi leen dëggal wax dañu daal di bokk martaba soxna Aïcha nag bi mu nekk ci ron yonente dafa mel ni wasiila la aw yoon la ngir mën a tasaare sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jigéen surtout li aju ci wàllu jigéen surtout li aju ci wàllu jigéen la ca a jaare ci buntam tasaaroo foofu rek la mën jaare ndax ñenn ñi ay mag lañ woon ñaw ko yàlla defaloon moom soxna si ak yeewute yi ak mën ngeen mokkal xam-xam dafa hikma boobu képp jar na mu nekk ci ron yonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mën a tasaare diine ba tax na yonte bi tagg na ko ndax aw tagg féetewul kaw ni jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen su xees yi xusu chakra diinikum min hadihi al xumayra jël leen seen xaaju diine ci jigéen su xees yi magi saxaaba yi du bari ci magi saxaaba yi daan ñëw di laaj soxna Aïcha benn benn ci àtte yi nga xam ne da leen di lënt te muy yoo aju ci mbirum jigéen lu mel ni comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu toll ci juróom-ñeenti at moom mu toll ci juróom fukki at loolu am na ci ñu toll nii nga xam ne lenn bindkat yi tubaab yi dañ koy bind di ko ñaawlu sax di wax ne léegi maanaam gone e, wërt sëy ak e, mag mu toll noonu di wax ay ay ay wax muy ñenn ñi tuddaay mustasrixoon nga xam loolu dañ koy garaaw di wax daal léegi e, mag moom juróom fukki at daal di dem ci ab jànq moomu loolu du wër maanaam di ko dàq waaye am na beneen mustasriq bu ñuy wax pod wax ne moo leen tontu lam leen tontu mooy dafa xam ne Aïcha li muy doon doon gone li muy doon doon gone amoon na ci ak ñaw ak yeewute ak ku kawe goo xam ne kawe woon na ci mboolem jigéen ñi mu nekk doon léegi ñu gisee ci ni ñun dañoo am ay sukkandikuwaay sukkandikuwaay yi mooy alquran ak sunna yonente bi la ñu yàlla xool loolu roy loonu ko léegi donte am na par benn benn ci bindkat yoo xam ne bu ñu bindee sax seen moroomam bindkat mu mel ni ñoom moo leen di tontu ñun loolu suñu yoon nekk ci li ñuy xool mooy son xaay sa genn wàllu diine ci ci dañ ko war a jële te loolu dafa laaj kon mu doon gone ndax mag dafa am yeneen yi nekk ci moom yoo xamante ne mën a mokkal na moo bi dégg du loolu dafa mel ni mu dee fii ci biir yoonu murid yi ñu dund ñun doxin woowu rek da si yëpp daan jël di ko doxe daanañ gis mu jël gone goo xam ne bu ko mayee ñëpp lañ naan ndax tuuti waaye gum tuuti waaye fekk ne am na sukkandikuwaay bu ko sukkandikoo ngir ginnaaw yonent bi sam moom lañ may ku toll ci juróom-ñeenti at moo jaawal sax juróom benn at lam bañ ko na muy loo xam ne royukaay la ci ñun pour ñu xam ne jigéen euh, waris na waris na ko teel a bàyyi xel tut ci ay mbiram teel ko maye ndax loolu lépp li wolof yi wax naan jigéen du të day raw léegi te jigéen li gën a waloolu si moom mooy mu nekk ci néegub sëy néegub sëy bu muy sëy nag léegi yow lañ yow lañ lay sa tànn yow mi koy maye yow mi way juram na nga seet fan koy dugal na doon koo xam ni diineem la ndax dafa daan wax ni jigéen dinañ ko ngir ñeenti ngir ngir ab wala ngir askan mu bokk wala ngir alal jum am wala ngir diine jum am léegi nag mun la yow na nga fexe ba jàppal borom diine léegi yow di maye xale bi jigéen bi xoolal jëlal yëf yi safaan ko booy may sa doom booy maye sa doom yooyu itam des na may nit soxna ngir ni tabax na kër gu rafet ak moodu moodu la mi ngi dem Italie ak ñëw des na kooku may ngir ni nangam waaye nag seetal ka ëpp diine ndax loolu moo ëpp mujj bul xool personnalité bi bul xool alal ji mu am bul xool dara xoolal diine boo xasee xool loolu nag ba joxe ko loolu moom bu amee juróom benn at sax baax loolu nag lañ soxla ndax yonent bi sansan bay ko koy jox moom moom ab yonent la nga xam ci moom ba mu a wax ni jël leen seen genn wàllu junni ci moom waaye yow mii maye waati nag léegi xoolal ki ngay may bu la doyee ci ay jikko lu nga negi tuuti mu gën a tuuti mu jëm loolu war na ko jàngee ci jël googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël soxna soosu mu toll ci juróom-benn at bi muy jaxasoo mu toll ci juróom-ñeenti at te loolu sax xaj na am na ñuy historiens yi dund di di ko di ko dalee ci kaw yonente bi que juróom juróom fukki at nangam ngay mu ngi am ci biir société yi yu yees fi mu toll nii eh, ci ci ci asiens yi asi loolu aada la ko ba ko tuuti gisee mag ba fi mu toll nii ci penku Europe loolu mu ngi loolu tabia la ca Espagne ak Portugal boobu yàggutoo ba ci booru Amérique ba tey am na fa côté yoo xam ne si ba fi mu toll loolu la ci kon loolu mbir la moom yonent bi dafa doon ab jàngalekat jàngale ko ñu war ko cee roy léegi fab xale bu jigéen teel koo joxe te kam koy joxe doon koo xam ne boo ko joxee bu mën caa jàng ay jikko yoo xam ne. mën na koo génnee tasaare ko ci biir société bi muy dund moom moom moom jigéen ñi loolu lu am solo lu ma ci bàyyi xel te jëm koo jëm koo roy kon soxna Aysa moom mooy ki ci gënoon doon ko ne moom képp sax la jël ci ab jànq gannaawam la jël doomi Omar ibn Xattaab ñu wax Xafsa moom dafa dafa euh, amoon borom kër borom këram mu ngi faatu ci xarib Uhud gannaaw ba mu iddawoo ba idda ji jaax la ko Omar doon gaaral Aboubacar bëgg mu denc ko xaj na Aboubacar tundu ko mu gaaral ko Ousmane bëgg mu jël ko gannaaw bu doom yonente bi jëm yoroon faatoo gannaaw bi mu ñëw ci yonente bi wax ko ni ko man kat sama doom ji diwa ko naa ci wax ak Aboubacar doon naa ci wax ak Ousmane yonte bi ni ko Hafsa ku gën Ousmane dana ko denc Ousmane it dana denc ku gën Hafsa daal di koy ñaanal boppam moom yonte bi sama sama daal koy denc daal di fab beneen doomam bu jigéen bu ñuy wax Umu Kalsum may ko Ousmane dana ko jël Ousmane it dana am ku gën ku kon loolu ba tey ñu xool rek gis ni mooy relation dëgëral relation bi daan am ci diggante Yonent bi ak saxaaba yi ko daan jàppale mu mel ni kon diine li ñuy wax politique politique dafa doon baat boo xam ne la muy tekki bu arab bu ne siyaasa siyaasa la muy tekki mooy doxin wu rafet boo mën a ànd ak nit ñi jamono bu ne ngay xool li la encadré qualité bi nga xam ni wóor na la ne fi nga taxaw mën na la fay wóotu jàllale mbooleem mission yi nga bëgg kooku bokkul ak ka nga xam ni mbooloo mee ko bàyyi ci yëf yi bu ñëpp bàyyoon mu bàyyi loolu bokk na ci politique bu ñu ñooñu nga favoriser la jël gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël doomi Abu Bakar jël doomi Omar ba noppi ginnaaw ba mu fi ñu ñaar ñu ko wóotu boo xam ne dara wóote woo ci ak daan dox ku ne na ne bu fekkee ne léegi politique bu rafet am na loolu mooy politique bu rafet te mënta lu mën a doon tolloo naa ni léegi bi ñu demee ba ni politique mooy ay fan ak i tappale ak naa mooy politique yi xew loolu moom bu mu fabee baat bi sax di ko wér ci ku mel yonent bi sax day mel ni takkalaat dara lay tekki waaye fekk ne politique ci ñun bu ñu andee baat bi li muy teg ci arab muy siyaasa taxaw yéen bu rafet lay teg doxin bu rafet te mooy ànd ak nit ñi ci àndin bu rafet boo xam ne lépp ak dëgg leen kon doxin woowu mu dox ci relation boobu mu dox diggante mag euh, ñooñu ba tey am njàng la war a doon ci kilifa gu mu mën a doon sa digganteeg si àll ba ndax loolu daf mel ni da leen ko def fayee leen ko ci taxaw gi taxaw ci diin gi ak ñor gum leen ñor ak dëggu guñ ci dëggu soxna sa ca topp muy juróomeel bi di asayida ummu habiba ummu habiba ramla la tudd doomi abu sufyaan yonente bi bi mu koy denc moom tam fekkoon na mu amoon borom kër ba ñàkk ko borom këram mi ngi bokkoon ci ñi gàddaayoon demoon Éthiopie ba tey moom ummu habib moom tam dafa gàddaayoon ànd ak jëkkëram jooju jëkkër ji ba mu demee Éthiopie la daloon kële moo ko dal dafa daal di nasaraanu moom tam bëggoon sax soxna si topp ko ci diine jooju waaye mu bañ daal di muñ jàpp ci diine islam jooju ba jëkkëram jooju moom ci euh, diine nasaraan jooju ci la faatu bi yonte bi xamee loolu yi nag la yabal ndaw ca Najaasi yi ni ko mu labatal ko ko Najaasi yu ñaanal ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dencal ko ko ba tey loolu ku ne dana ci xamee ni denc googu yéen tamit suñu denc googu ku ne dana ci xamee ni euh, ngëmam gu dëggu mu bëgg ko koo bëgg ko defal bëgg lam ñàkk mu fayee ko lu ko lu ko lu ko waral denc gi waaye ku ne xam ne ni loolu du denc bànneex du denc gii di dox diggante nit ak nit ku ne xam ne ko ñaareel ba abu abu mi ko jur ci ñi gënoon noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la bokk ba tey doomam gëm-gëm gu dëggoo noonu gu tol noonu borom këram nasraan bëgg mu topp ko ca mu gàntal yonent bi fay fay gum fay soxna si ci takk ko ñaareel ba it denc gi mu ko denc dana doxoon digganteem ak Abu Sufyaan ba loolu bokk ci politique bu tax comme noonu rek dañ ciy jaar jaar yu gaaw xëy na bu beneen ne sax du ñàkk ñu leen doon tukkati kenn par kenn ku ci ne danañ ci mën a waxtaan indi ay ay indi ay ngëneelam waaye loolu lépp nag ay jamono la ndax jamono ji moo yaatuwul yaatuwul tamit waaye dañu leen di andi andi rek dégg nañ ci am. soxna Ummu Salama moo ci topp Hind doomu Abi Umayya la kooku ci ñi gënoon a ak ngëm ak jihaad ci la bokk ci ëpp ñi ëppoon ak ngëm ëpp ci jihaad ci jigéen ñi ci la bokk moom itam dafa gàddaa na ànd ak borom këram dem Éthiopie ngir di rawale ji diine ci lori Xuraysh ci ñi njëkk a gëm la bokk. ginaaw bi it mu gàddaay ñëw Madina borom këram nag ñu ngi faato woon ci xare bu xat moom itam yonent bi labat ko ngir denc ko li ko bi labatee dani ko moom soxna um salam moom mun yonent bi man day mag laa tey doomu njaboot laa tey dama fiir ñett yëpp dañ na ci man yonent bi ne ko bu dee mag gi maa la mag bu dee njaboot gi moom yàllaa ko warlu bu dee firaange gi dinaa ñaan yàlla mu dindi ko ci denc ko li ko bi labatee dani ko mom sanu um salam mom mun yonte man day mag laa tey doomu njaboot laa tey damaa fiir ñet si yëpp na ci man yonte bi ne ko budé mag gi mala mag budé njabot gi mom yalla ko warlo budé dee firaange yi ñaan yalla mu dindi ko ci kon kooku moom itam buñ da danañ xam li tax yonente bi sallam denc ko muy seenu ngëm seen pas-pas la daan xol di len terale lolé mu len mu len di jël kooku mu len di jël juróom ñaareel mooy Zeynabu bintu Jahsh kooku moom itam yonte bi daf ko denc ngir aada yi jaaxeel yu amoon mu jubloo yàq aada yooyu pour taxawal diin ndax Zeynabu ab Qurayshi ya la maanaam ci waa Qurayshi la bokk borom askan wu kawe la doomu bàjjanu yonente bi la Umayma bintu Abdul Mutalib moo ko kon doomu bàjjanam Zeynabu Zeyd ibnu Xaarisa moo ko yor Zeyd ibnu Xaarisa ku ne xam naa histoire am euh, dañ koo jàpp biñ ko jàppee nit ko jënd bi mu ko joxoon kado may ko Xadija moom moo mu ko mayee yonent nekk as ngóoram di ko liggéeyal ab diir ay waajuram dégg ñu ni seen doom dañ jàppoon ca xare sàngam kat dégg nañ ñu ni ma nga màkk baayam ak baay baayam bu ndaw war seeni gëléem ñëw ci yonante bi ñu ñëwee Màkka bi ñu ko wax yonante dañ koy dégg suñu doom moom la ñëw ngir jot si ko yonante ni leen danaa ko woo mu ñëw bu leen tànnee ma boole lee nag moom ngeen dem ci lutul ak jot bu ma tànnee ngeen bàyyi ko ñu dégg lool daanaka loolu gi xewul ndax jàpp nañu du tànn mukk ak njaam ci ay ay ñu woo Zayd mu ñëw yenente bi ñu ko xam la ñi mu ne ko waa xam naa leen ci sama sama diw la mu ne ko dañuy ñëw di la jël si ma bëgg na benn nga tànn leen mbaa ma tànn nga tànn ma boo leen tànnee da nga dem ci lu ak ak jotu su fekkee mën nga tànn ñu bàyyi la waxante ko li xam ci yow ma tànn kenn ci sa waaye ko yow a ni sa yooyu waaye fekk ne booba li bu wóor sax ak seegut waaye jikko ji rafet ji mu xam ci yonent motax mu gënal ko ay ñu jëk loolu ma waral yonte bi jàpp ci loxom ñëw ba ci kaaba bi ba waa ci ñëpp teew mu leen maa ngi leen di seereloo ne zeyd nii sama doom bés ni ki tey dana ma don ma di ko don daal koy boole ci biir njabootam te booba loolu daganoon adapté nit ñu mu bokk ci sa ba booba dañ ko daan wooyee zeyd ibn Muhammad dañ ko daan wooyee noonu lañ koy wooyee ba aaday doomoo nit bi yàlla bëggee mu jeex léegi Zeynabu bint Jahsh yi nga xam ne dañ ko mu fase ko ndax may gi biñ ko ko biñ ko koy may Zeynabu dafa gàntal ndax day jàpp ni comme ci waa Quraysh la bokk bokk ci ñi gën a tedd ci jigéen ñi bi sëykub jaam daan loolu ak manqué ci lay doon ci moom waaye ni yàlla it ñuy digle dafa jubloo nattu Zeynab ba xam fu ak ngëmam toll ndax diine yëpp dafa ñëw ngir dindi yooyu dindi ay xeebante ci askan ak yooyu yëpp diine dafa ñëw pour dindi ko kon danañ la nattu ba xam ndax li nga woote wér na ci loolu la yonente bi ba yonente bi gaarale Zeynab ko dama maanaam dama laa bëgg a may sama doom yi ñuy wax Zeyd Zeynab lànk ni ko xel xalaatu daal di am jomb lool ngeen ni léegi moom fi mu bokk daal léegi ëppante na ak muy jàng bi loolu amee ci la aaya alquran wàcc ni wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amri wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubin yàlla wàcce aaya alquran ni yellut ci benn jullit bu góor mbaa jullit bu jigéen bu yàlla attee akub yonentam ñuy tànnati seen tànnu bopp seen mbir mënatuñ caa moom dara ginnaaw bu attu yàlla ñëwee ak yonentam daal di ne comme yàlla akub yonentam nag réer na réer bu réer loolu moo waral Zeynabu wàcc d'accord si ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu may ko Zeyd ibn Haarisa may gépp nag teewul nekk ci ab xol nii dafa ñuy xuta faxas donte ak ngëmam doone ko ci mu nangu bañ a gàntal wax yàlla waaye teewul la newoon ci biir moom caaxaan ko dindiwut léegi relation yi seen diggante neexut ndax muy waxal ak moom wax ñu tàng wax ak moom di ko di ko di ko di ko ayibal di ko ayibal ci aw askan naa ko doon dara lu nangam nangam ba sëyit mënatu ko dékku ñu fase ko muy mu waxtaan yent bi ba wax dëgg mënatuma ànd ak moom léegi foog dama koy fase bi mu ko fasee nag yàlla digal yonent bi mu war a del ci Zeynab moom ngir yàq bidaa boobu ñu fi amoon muy bidaa doomoo nit def ko sa doom ba tax doo sañ a denc soxna bidaa boobu la yàlla jubloo yàq ya. moo tax mu digal yonente bi mu denc Seynabu ginnaaw bu ko Sayd ibn Xaaris te bàyyi Sayd ibn Muhammad dañ ko daan wax jamono boobu waaye même yonente bi sax bi ko yàlla digalee loolu am na ci problème parce que ci nit ñi rek xalaat na ni naafeq yi loolu lañ ko wax ko defee yàlla digal na ko mu denc waaye tool fii nga mën na ci juddoo ndax dinañ ko dinañ yàq ab daram ni Muhammad denc na doon eh, soxna si doom loolu moo waral. aaya alxuraan bi wàcc na ni kuy yedd yonente bi ni ko wa taxsha wallaahu axaqu an tuxsha da ngay ragal nañu waaye yàlla gën a yee ci nga ragal daal di ne falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa likay laa yakuuna alal mu'miniina harajun fii azwaaji adiyaa'ihim izaa qadaa minhunna wataran léegi aaya boobu kon li ko sabab mooy ginnaaw bu ko yàlla jox ndigalul denc soxna si xalaat bi mu ci am ci li nit ñi doon dal ci kaw moo moo raay bi wàcc yonent bi xamoon na Zeynab bintu Jaas jigéen bu ak nganam doomu bàjjanam te Zeynabu yonente bee ko gën la ay bëtam ni ko wala fi ñuy bu ko bëggoon a denc ak cofeel mbaa bu yàgg la ko doon def ba mu kon lii ku nga gis bi tax mu denc ko moom itam nga xam ni du problème nga xamante ne mooy am ci diggante nit ak lu ci nekk xikma waaw muy aada yi la yonente la yàlla jublu yàq foofu tax mu digal ko mu denc ko foofee la ginnaaw bi nag la ay alxuraan wàcc wane ni léegi euh, fad'uuhum li aabaa'ihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu aabaa'ahum fa ixwaanukum fi diin wa muwaaliikum booba lañ bàyyee wax Zayd ibn Muhammad di wax Zayd ibn Haaris li ngeen xam ne kon seen surga la ñuy nekk ak yéen waaye bu leen leen wérati ci kan ka ca topp mooy Juwayriya bintul Haaris ibnu Abi Dirar kooku mooy juróom-ñetteel moom itam mu mel ni bi ko yonent bi denc jubloo naam mu xoli ay mbokkam ci islam rek moo tax mu denc ko ak liberté gi ñu ñàkkoon mu jox leen ko ndax di wéy ci benn mustalax la bokk yahudi yi ñu daan wax benn mustalax ñoom waxoon nañ seen histoire ci ginnaaw dañoo dajale woon bëgg xe bëgg xeex si yonent bi sama seen kilifa nga ñuy wax alxaaris ibnu abi abdillaah moo ko jiite. bi yonte bi déggee gëstu ba xam ne ñi ngay waaj ñu bëgg ñu xees moom mu jëkkante ak ñoom jëkk leen dal ci seen kaw ba mu dalee ci seen kaw dàq leen jàpp ñenn ñi ñenn ñi ñu rey leen ñu suñu jàpp na ci lu bari ci ay góor ak i jigéen ak i xale jëlee fa alal ci bare bari bu jigéen ñi ñu jàppoon nag juwariya mu doon kilifa euh, bani mustaraq bu jubaytee doomam la ñu jàppale ko ci ñu ko jàppalee bay séddalee mu tàbbi ci cërub kenn ci jullit mu mu jotu mu bëgg a jotoo kooku ne ko léegi naa la jox nangam te gore bi kooku d'accord rek moom ci loolu mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah man maay Juwayriya bint al-Xaaris ibnu Abi Diraar sayyidu xawmihi ni ko li ma dal ci balaa ëmp la muy yàlla natt sama ba ma dugg ci ak njaam léegi nag damaa dugg ci cërub Saabit ibnu Xays moo ma moo ma yëlif damaa jotoog moom nag ma bëgg nga dimbale ma ci jotoo gi muy jotoo ak moom foofu xikma bi yonent bi feeñ na fi ci bañul mustalax ndax comme ay dëkkandoo lañ jógoon nañ ngir xeex sax ñoom normal mu daj seen ko ba gañe leen ba jàpp leen ay jaam waaye feeñal na fi xikma ndax dañoo bokk ci arab yi gënoon tëdd ay askan ñoom Bani Mustaliq xam nga ngeen jàpp seen i góor ñëpp ak seen i jigéen mbooloo mu toll nga jàpp leen def leen ay jaam dana doon ci bakkan yi surtout bakkan yi xam ne ay bañkat lañ te it loolu mën naa indi problème socialiste lu garaaw la doon ci biir société bi ñu dar mu doon ab yëg-yëg bu ñu yëg ñu boo xam ne loolu na ko indi foofu la xekk mu yonent bi fay ci ni mu ci doxe parce que ci doxe mooy dafa wax juway ni ko ndax bëggoo lu gën loolu lu gën ma dina dimbale ngay dem di di jot mun ko loolu doon yow yant yàlla mun ko mën naa laa fayal sa bor te denc la lu ko ak xew la loolu daal daal ñu ko loolu a baax bu bi fayee bu ko fayalee bor bi daal di koy denc bu xibaar bi xibaar bi tasaaroo ci biir jullit yi ñu ne yant bi denc na juway ree bintu xaalis jullit yi seen xel moo jox ni goroy yonante bi du ñu def ay jàmm kenn ku ne daal di libéré ñu ngi ci amoon nga xam ne kon xikma la doxee foofu moom yonent bi nekkul sax di woote di wax benn baat waaye nag ginnaaw denc na juróomi rek ñu ne ñii kat te goree yonent bi duñ leen jaamu ba lañ ci daal di gore bépp lañ leen di gore daal moo tax soxna Aïcha di wax ni musuma gis jigéen ji ëpp barke jigéen ji muy ndax bu ko yonent bi dencee bi tax na ñu. goreel ci mboo mboo mbooloom ba ñu mustalax ñu yor ñëpp lañ leen goreel ci sababu denc la yonent denc mu ne mu ne jàng jigéen ñi ko ëpp barke ci waa Kër Ndaal mosuma ko gis loolu loolu soxna Aïcha seeral euh, juway ya moom juróom-ñeenteel mooy Safiya bintu Hayy ibnu Axtab ba tey moom itam bàyyam moo doon kilifa ak Bani Nadir ci Bani Israël la bokkoon dañoo rey jëkkëram ci xare Xaybar dañ ko reyee yonent bi woo ko moom Safiya moom li mu ko wax ni ko nag nga continuer ci sa diine moom du ma la ci forcé waaye nag bu fekkee ne tànn nga yàlla akub yonentam ma ma féetale la sama bopp mu ne ko tànn naa yàlla akub yonentam bi mu waxee loolu yonentam daal di koy goreel daal di koy denc ba tey loolu euh, teraanga ju ko yàlla teral la mu denc teraanga ju ko yonentam bi jubloo teral la ci denc bi mu ko denc ngir ngëmam kooku ka ci topp mooy ay sayida Maymuna bintul Xaaris alxilaliya moom mooy ci yonent bi mu gëleent léegi yonent bi ginnaaw fukk ñooñu juróom Xadija la fi bàyyi euh, xaj na fukk ak benn laa wax jabeer ji xaj na dama cee boole Maariyatul Xibtiya Maariya moom euh, ab jabeer la bu mu yonent boobu yonent sama suñu euh, jur doom ji ñuy wax Ibrahim Ibrahim moom dafa teel a faatu ci ak ngoonam la faatu moom itam ngi def dañuy wax Rayhaana bin Zayd al Xurafi yooyu ci Bani Qurayza la bokk moom itam euh, ñooñu ci ay jëgëram la ñu bokk yonent bi nag doomam yëpp Xadija moo leen jur ba mu des Ibrahima doom yi mooy Qaasim ak Tayyib ak Taahir yaakaar naa loolu ne Tayyib moom moom la ñuy wooye euh, moo tuddoon Abdullahi ñu di ko wooye Tayyib ñett ñu góor ñu la ak Ibrahima ñeenteel la léegi Zeynabu ak Roqaya ak Umu Kalsum ñooy jigéen ñun ñëpp bu dee góor ñi moom ñoom ñëpp ci seen ngoone lañ faatu jigéen ñi nag ñoom ñëpp dem nañ ba màgg ba dencees leen kon loolu ab dars la ci bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rek ñu jublu cee jàng rek ni eh, cër bu góor am ci diine ji jigéen am na ko ci ndax indi naa léegi ñaari siddiqatu muy Asiya ak euh, sayidatu Mariama te siddiqa it wax naa ni bu martaba nubuwa jàllee moo ci topp ndax yàlla nee na ulaayka lazina an'ama allahu alayhim mina nabiyyiina wa siddiqiina kon jigéen cër bu yonent bu jàllee yonent mooy li gën bu jàllee rek cër ba ci sisaat jigéen mën ko doon comme ko góor maa doon ni Abubakar doon siddiq noonu la Mariama doon siddiqa léegi mu doon loolu lañ cee jubloo xam ne rek ni cër bu bu góor am ci diine jigéen mën na ko ca am li nga xam ne li ñu dund ci jamono léegi bii mooy cër bu fi góor am ci wàllu adduna gis nañ am ko ndax bu fekkee bi am na fa ay buur yu jigéen muy buuru Angleterre am na fi ay président yu jigéen am na ay premier ministre yu góor am yu jigéen nga xam ne cër bu ñu fi gis ci jamono léegi jii góor am ko rek gis na jigéen am ko kon léegi loolu war naa mën a pousse jigéen ci muy góorgóorlu ci côté yëpp te ni ma tuddee soxna Yonent bi Sanson wax ne war nañoo mën a doon ay royteef si jigéen ba jigéen xam ne li nga war na ko mën a doon am nañu ko dund am nañu ko dund am na ku ñuy wax euh, Rabia al Adawiya ku yéemu la woon ci wàllu tasawuf daanaka ñaari at la soobu àgg ak góor bu fële ñu dafay bàyyi ko di ko siyaare si léegi ci saxaaba yi it am na ci jigéen ñoom xaj na lépp lu mën a leer ci jataay bi waaye am na ci ñu xamante ne ay misaal yu yéeme am na ci jenn jigéen joo xam ni doomam dafa wéradi bi mu wéradee ba noppalu ci ay loxom borom këram génnoon bu borom kër bi ñëwee mu andil ko reer mu reer mu daal di dem waaj na mu daan waaje ba jekk ñëw jege borom këram ba mu jaxasoo ak moom gannaaw bi mu xam mu ni ko mu xamal ko ni ko xale bi ka kat daa noppal mu ko eh mënu ma ko woon wax mu ko dama doon bañ ngay am benn jafe-jafe mbaa nga waroon a leer te réew mbaa nga waroon a def def léegi ba mu xëyee wax ko yonent bi nettalee ko ko noonu yonent bi ni leen baarakallahu fii laylatikuma yal na leen yàlla barkeelal seen guddi ba ginnaaw bi lañ ca ay doom juddoo yoo xam ne ñëpp ay borom barke am nañ ci ay tegtal yu bëree bëri yoo xamante ni ñu mel noonu la ñu doon ci saxaaba yi ay melo melo yu demee noonu kon loolu ñu déggee ci rek euh, taxawaay bi jigéen war a taxaw ci wàll yëpp bu dee ci seere yi nga xam ne nag ñi bokkul ci diine ji dañ koo seereel yonente bi sallallahu alayhi wasallam dinaa ci andi benn seere bu benn philosophe bi ñu wax والديورانت ساري وقد فعلا بنخو بفكان ريب نتكدر بفكي ريب نتكدر من كوي خوال تي جاخي بجون جاخي تل تي أدن محمد كوكو دن ريت نتي نتي استوار مسام نخ مستوى بيغا خمني مانا ميو بيغا خمني سنة تلا عربي تلوان تي أك أريا أك في مولين بوس يبو ميتي والو روح والو ديكو wàllu ak nite fa mu leen ci yóbbu wax na ne bu mu doon dox junni at maanaam mu ngeen dox danañ ko dox dox junni at mu yóbbu leen fi ci diiru ñaar fukki bu fekkee ne dañuy xool nit ki rëy gum rëy jeexit jum def ci àdduna bi rek kon yont bi kenn féetu kaw ci wàllu kawe am na fi wax Lamartine benn adib la adib bu dëkk France France la Lamartine wax na ni bu fekkee ne xëdëf bu rëy ak simple yoon wi nga jaar pour am ko ak résultat yu rëy ak résultat yu mag bu fekkee loolu mooy ñetti xiyaas yi ñuy xiyaase pour xool matug nit daal kon Muhammad kenn du ko mën a comparé kenn ci kaw suuf ndax xadaf bi rëy na yoon yi mu jaar ko simple na te résultat yu rëy mu ne bu fekkee ñetti yooyu mooy yi ñuy jaar pour xoolee ci nitu nit rek kon ku gën a rëy Muhammad dana wax ni amul ci kaw suuf daal ndax ñu ñu fi gisoon ñu gën a rëy ci ci ñu fi jaar ci li ci histoire mooy ñoo xam ni bu ñu génnee ay gànnaay xeex ba luwaay yi fi fekkoon ñu changé ko bu ñu ko changé taxawal fi lu mel ni as ngóor ngóor soosu mën naa am ba lañ fay jóge ñoom ci seen jëm bopp ngóor ga tasaarowaat yonente bi lañ gis mu ñëw soppi ay nit ay nit yu bokkul ci bokkuñu aw xeet bokkuñ làkk wu ñuy làkk bokkuñu ay bokkuñu woon ay yëg mu soppi ñëpp takk leen ci genn boobu ñu jaar ci wenn yoon mu teg ko ci kaw benn téere boo xam ne nag téere boobu araf wu ci ne ab luwaa la Lamartine moo ko wax araf ci ne luwaa wax ni fii jaamu xiram toll woon ci xel xooli arab yi mu di ak ni mu ko dindee ci seen xol ba mu set di philosophe bi di muhaadar bi di ab yonent di mu charia di ki nga xam ne bu xeex jotee mooy suñu buñ ko jiitu di génne xalaat yi maanaam mu ni buñ xoolee ci xiyaasukaay yi ñu xiyaas yëpp daal yi ñuy xiyaase nit ku kenn du mën a indi ko koy ci kaw suuf loolu ab yéefar bi ko seere ci yonante bi kon loolu mooy li ñu doon ñambaas ci mujjub yonante ko histoire ba ci nag xam naa comme xilaafa gi ak euh, benn benn saaba yi la xam na juróom benn fukki saaba yu ñu cuqit wax seeni jikko euh, te kan ku ci ne dafay représenté junni nit ak euh, nangami junni nit yi nga xamante ne ñoo toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp sax kenn du ko mën a nett waaye danañ ci am ñu cuqati ñoo xamante ni lañ cee jublu lépp rek mooy am jàng ndax adduna histoire histoire dafa doon loo xam ni dafa mën di ñàkk ci dundu doomu aadama bi ndax alxuraan sax daf noo junj ni nu daf noo digal ñu ne nañu di dox ci kaw suuf di xool bu jóg ñu jaaroon barab sangam fa ñu jëm fa siiroo fil ardi fanzuru ñu tekk mooy del dox ci kaw suuf di xool yoon sangam yi ka ci jaaroon jàll boo jaaree da nga jàll yoon sangam yi ñi ci jaaroon dañoo kalawu ci diggante boo ci jaaree da nga kalawu kon histoire dañ koy jàng ngir loolu ak boo demee ak sax ngay dox nag saa boo demee ba gàgg gestu sa ginnaaw xool mën a gàggante ko ci la nga weesoon ci ginnaaw euh, bu dee nag jëm yonent la ak saxaaba yi mu àndaloon nga xam ne boo leen yar ñu doxe ko ñooñu moom jullit bu ne jamono bu ne rek dafa war a teewal dafa lu leen war a teewal ci kanamam ngir mu doon waxuma la sax mu doon am jàng waaye daf ko war di dund war indi ci di ko dund loolu mooy waral mooy tax lii ab jullit bëgg a taxawal mu mën koo taxawal ak jamono ju mën a doon ndax buñ xoolee ci jamono biñ toll jullit yi mat milliard bu tegal léegi yéefar yi la ca des lépp lu door doon ay nit ñi jaxasoo ñu bokk ñii ay jàmmkat xel lañ ñii gëmuñ ñi ñii gëm nañ diine chrétien ñii gëm diine yahood te teewul nos bi nekkul ci loxo jullit yi jamono bu ne rek ñun dañuy nose dañuy puus dañuy jàllale dañuy wan fi ñu a jaar loolu war nañoo xoolaat suñu bopp li ñuy xoolaat suñu bopp mooy dafa mel ni organisé wu gi saxaaba yi defoon ak takkutoo gañ defoon ak nañu àndewoon ak nañ daan xoolee alxuraan benn point bu mu wax bu ne ñu jëm ko dund mu doon jëf ñu ñuy jëf loola moo ñu manqué te jamono bu ne war nañuy xool nu ñu ko mottalee suñu jën bopp naka noonu sëriñ bi bu bu ñëwee muy sëriñ Tuubaa mi ñu ànd bu ñëwee jëmmi loola da andiwaat moo tax mu leen daan wax mooy def leen saxaaba yonente bi yuy seen i baay lu ngeen daj rek dajal nañu ko ëpp te muñoon nañ ko ba taxaw li ñu taxaw danañ dégg ci aaya bi nga xam ne dafa wax soxna yonente bi sans ndax yonente bi ay soxnaam dëgg la si naqar naqar yooyu ci lañ daan dund ànd ko moom yonte bi waaye benn bis nag xalaat nañ ci seen jëm bopp ni léegi ñun daal nekk bi nekk yonte bi ba noppi te daanaka koddaay lu baax ak dund bu baax amuñ ci dara loolu war nañ ko diggante ba ñëwee jàmbat ko yonte bi sax yonte bi lañ mooy dina na gàddaay lu mat daanaka lu jege ñaari weer ba ay alxaan wàcc bi ay alxaan wàccee ni yonente bi waxal sa waa kër ñi ni leen bu fekkee ni da ngeen a bëgg adduna képp da ngeen a bëgg dund bu adduna kullu azwaajika in kuntunna turidna al-hayaata dunya wa zinataha fa ta'aalayna umatti'kunna wa usaffihkunna saraahan jamila bu fekkee ne adduna ak taarub adduna képp ngeen bëgg ma fas leen bàyyi leen ngeen jóg dem wa in kuntunna turidna Allaha wa rasuulahu wa daaral aaxirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinaati minkunna ajran 'aziiman bu fekkee nag yàlla akub ak bis ak ëllëg ngeen bëgg nag yàlla xaroon na leen fa ba bu mu wàccee yant bi leen woo kenn mu ne ko lii laay mu ne ko lii laay waxtaanee sama ñaari wujur man nga xamoon yàlla ak yonent bi lay tànn ak bis bi mu wax ko kooko tontu la xay si tontoon noonu la leen kenn kenn bañ jaax kon ñu dégg ci kon yoonu yàlla benn lu neex ñu ngi loo xamante ne léegi day mel ni ak lem booy wan mbaa muy doon doon tàntal déedéet lu naqari kat la war a doon wax nañ ni luy nekk la ñu sëñ bi laat waxoon na ko waa këram ni leen dépense bi ngeen di waxte na ngeen xam ne yëfaluma damay dundal doon si waa Kër Sëñ Tuubaa yëpp ci loolu la ñuy dund mooy ne dañuy dundal waaye yëfaluñ parce que adduna taxu leen jóg yonente bi mu taxawaloon li mu taxawal ku xamoon li mu sampale woon ci ab dund nga xam dañu ko an ay ndar lay doon yuñ jaxase yuñ fab ay xajali tànga ba ko ci biir muy doon payaas bu woyof nii benn bés soxna si lam na mbaaj daal ñu lii dafa xaw a wow ba ëpp waaye yonente bi ñëwee nañ ko delloo na mera ñoom ñu ngi dëkkoon ci néegi ban tabaxi ban lañ tabaxaloon léegi rajo ya nga xamante ne moo daan ub ub néegi ay der dari dari gilem di daan def maanaam dund bu simple boobu lañ daan dund moom soxna Aysa wax na ni eh, waa kër yonent bi mosuñu regg lu mat ñetti ñaari fan ñu ñu ko ci mburu mu ñu defaree benn nee na Moussa moom dina ci dund taxasuf ci lañ daan dund léegi nag jullit bu nekk war si loolu xam ko xam ne adduna daa war a neex boo yi di fanaane julli di noot seen bakkan ci fanaane julli di yendoo woor loolu lépp lañ cay jublu mooy pour wane ni adduna neexut maanaam saa boo jëlee aw neexit bëgg cee dox rek léegi yaa ngi dox ci doon doon lu wér suñu Basiir wax na ne sëñ mag bi ci ak mujjam am na benn murid boo xam ne daan defal junjaat bi ko ko andil bi ñu ko andee ñaari fan ñetteelu fan ba ñu ko nañ ko delloo ngir damay bañ sama bakkan laay bañ mu tàmm ko te adduna daa wóor mu ne te boobaa bi muy wax loolu léegi bu bëggoon ay bëri koy bëri koy junjaat dana ko mën a am waaye jamono bu ne ba ak mujjam mi ngi bàyyi xel wóor a jik adduna ba tax na du ko ko nax mu ko ci adduna nag jullit bu bëgg a dellu ci ak njëriñ wala murit bu bëgg a ci cosaan la nga xamante ne moom la si Sëñ Tuubaa indi woon fokk muy bàyyi xel yooyu di ko xam di ci jéem kem kàttan kon léegi loolu euh, ak taxawukaay la euh, ñu taxaw foofu ba beneen yeneen gëstu yuñ ci gëstu ci wàllug euh, lu saxaaba yi ak déggin li nga xamante ni maanaam Serigne Touba dégg na ko yenn sens ba mel ni ku ko daan dund lépp boo soobee yàlla dana ci def waxtaan di nuyu mbokk yëpp nañ leen sant di leen gërëm.